asalaamualeykum mbokk yi tey la àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru tabaski atum junneek ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett yemoo ko àllarba ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet atum ñaari junneek ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a dañu koy door rek liggéeykat yi seen oo di kër gi ñu dénk wàllu ndox mi ci réew mi ñoom nag ginnaaw ñaari fan yu ñu nekkoon ci euh, selenglu euh, di bërki démb ak démb nee nañu daal dañ ciy dolliwaat yeneen ñaari fan muy tey ak suba li ko waral nag nee ñu daal gisuñu kilifa ya yëngatu benn yoon kenn yeyul yàbbi ci seen euh, selenglu googee ñu nekkee woon du jëwriñi kër ga du it jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox mi ba tax na daal dañ ci ci dolli yeneen ñaari fan ñuy wax ni nag daal seen lu gi e, te juróom-ñett fukk ak juróom e, ci téeméer e, topp nañu ko ba tax na daal ñuy wéy rek di laaj la ñu doon sàkku te mooy ñu xool bu baax daal anam ya ñu nekkee te seen payoor yi nga xam ni daal danoo jàpp ni dafa tuuti ba yegg ci lool ñu jim ko yokk Euh, nu dem ca Rufisque Nord euh, liggéeykat yi bokk moomeel ga nag ñoo doon janoo ko saabalkat yi ni ki démb euh, di ñaawlu nag doxalinu farab gox ba nee ñu daal moom day dàq liggéeykat ya te tegu ko fenn li ko waral lu lenn lu dul rek bëgg dugal ay nit yi boppam ka mu mujje dàq nag lañ ne bii yoon moom du jàll li ñu bëgg daal mooy mbooleem ñamu dàqoon na leen delloo ca seeni toogu lu ko moy rek dana nu jàmmaarloo ko moom ba ci sax nag ba ci gàllankoor doxalin seenu bokk moomeel ga ëttub attekaay bu Louga tey jii lay joxe dogalub atte ba tukkee ca jee joxe woon ca raglub màggat loobu Linguère euh, ba nag ñeenti liir ñàkkoon ca seen bakkan euh, toppekat bi nag moom la mu doon sàkku mooy ñu tëj leen juróom benn weeri kaso yu ñu dul tëdd tey jii nag la ëttub attekaay ba di génn nag dogal ba tukkee ca atte ba maître Alaaji juufu laykat bi doon euh, janook saabalkat yi ni ki biig ci guddi euh, doon rek nag euh, dal ci kaw usmaan Sonko di wax ne daal woo gi mi woo Mimi Touré ci waxtaan Mimi du ko ca wuyu ndax moom Ousmane Sonko bokkul ci jongante yi kon nag Mimi bu doon wax kaneen lay waxal ku dul Ousmane Sonko ca jataay boobee sax nag la dale ci waa ànd sàmm jikko yi wax ni daal li ñuy wax naan képp koo xam ne rek daal dangaa wéttal mag Macky Sall danga nga euh, kañ ak euh, ngóor jigéen euh, loole moom demewul noonu moom sax ci gisinam daal waa ànd sàmm jikko yi sax ñoom far day ñi dañuy mel ni daal ñoo xam ni daal ñooy ñooy daal dooleelu ko ngóor jigéen ndax li ñuy tudd seenu tur daa bari lool di kàddu yi nag maître Alaaji Diouf yamu yëkkati démb ba muy janoo saabal kat yi mbokk yi ñu daaneele rek ak tàggat yaram wax nag euh, ci daal jongante yi waajtaay yi nga xam ne nag bar yu bari foofee ca tugal ñoo nga ca euh, démb nag barok euh, Espagne gi di Barcelone doon na amal nag ab jongante xaritoo jëm nag ci waajtaay yi ñu ci doon janoog nag barok Italie gi di Juventus waaye daal lañu mujjee mooy témboo ñaar ak ñaar Eh, ñaari bali Barcelone yi nag ko dugal mooy Ousmane Dembélé ki noonu it Real Madrid moom it doon na amal ab jonganteeg Baroque mystique Mexique eh, gi ñuy wax nag America ñoom itam nag lañu ñu mujje mooy tembo ñaar ak ñaar mbokk yi lii mooy li fi ruusoon ci tënkum xibaari bis bi nu amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndeem soob na yàlla